miroir Covid 19 mbokk yi daleen ak jàmm ci émission bi nga xam ne moom lañ jagleel wàllu mbas mi di magasin saa su ne ñu ciy wax mbas mi fi mu toll ci biir réew mi ak biti réew loolu nag gannaaw ba nga xam ne nag saa su ne ministère bu yor wàllu wér-gu-yaram dafay def xayma moo tax dañuy ànd ak docteur El Hadj Mamadou Ndiaye mu yor wàllu fàgg gi ci ministère boobu mu daal di ñu defal xayma bés bi. ci junni ak ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaari yi ñu jot a téeméer ak fanweer ñoo ci positif ci ñooñu positif am nañ ci juróom benn fukk ak juróom-ñaar cas contact mooy ñi am doomu jàngoro ji fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi yore feebar bi am nañ ci juróom benn fukk ak ñett ka communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji te xamuñu ku leen ko ñeent fukk ci malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bës ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee juróom fukk ak ñett ñu nga réanimation ñaari malade ñàkk nañ seen bakkan ci bësu démb gaaw fukki fan ak juróom ci weer août biñ nekk ñeneen ñi des ci hôpital yi ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaabu njëkk ba senegal wëññi na fukki junni ak ñaar yu teg téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaari cas ñi xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu juróom-ñaari junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar wér nañ si ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñett ñàkk nañ seen bakkan mu des ñeent junni ak ñaar téeméer ak fanweer ak benn ci hôpital yi wala ci loxo docteur yi jërëjëf docteur Mamadou Ndiaye ci xibaar yu am solo yi mu jox ñu ci wàllu mbas yi xam ngeen nag tay cas yi na ci téeméer ak fanweer naka noonu cas communautaire yi cas contact ñoo ko ëpp am nañu ci ñàkk seen mbakkan mu ngi gindi yokku cas grave yi tamit di gindi yokku géeri yi tamit ñeent fukk la ni ki tey ji ñu ngi ñaan borom bi mbas mi tel fay jóge kon ci diwaanu Kolda la ñu jëm fekk fa lay Diallo foofu nag pandémie bi mu ngi gën yokk maanaam mbas mi nekk lu doy moo tax kii di préfet bi wàcc ci mbedd mi ci place publique yi ñu daal respecté li nga xam ne moo nekk mesure barrière yi su ko def rek képp ku ñu jàpp di nga am amende métti boo xam ne dinañ ko def loolu la ñu Ablaye Diallo wax ñu dem fële ci diwaanu Kolda. ni cas coronavirus yi yokkoo fii ci Kolda moo jaaxal ku ne rawatina waaye nguur gi mu mel ni préfet bu département bu Kolda. mi nga xam ne bu li mel xewee fii ci Kolda ba léegi mayul boppam jàmm ginnaaw ndaje bu CDD bi mu oote woon barki démb tey ci suba dafa dal di wàcc ci biir marché central bi ànd ak alkaati yu Kolda ngir nemmeeku fan la askanu Kolda toll ci wàllu topp tegtal yi aajowoo mbas mi. tey dañu ñëwoon fii euh, def tour ci marché bi pour xool ndax nit ñi ngi sol seen masque mais également pour euh, donc waxtaan ak ñoom. mbaa commercant yi ak clients yi pour wax leen ni euh, fii ci Kolda feebar bi donc commencé na jéggi dayoo et donc euh, ku ci nekk da nga war a jël sa matuwaay pour aar sa bopp. moo tax ñu def tour ak police ak euh, centre conseil ado père éducateur yi ak responsable marché yi pour ñu xool effectivement ndax loolu koy def li ñu li ne moom la gis moo di globalement nit ñu ngi seen masque. comme ni ko nguur gi diglee képp ki ñuy jàpp te solul masque boromam day fay ab ndàmpaay. bon loolu nag euh, ma ci jaajëfal surtout waa police parce que ñoom bis bu nekk ñu def le tour pour jéem a vérifier ndax nit ñaa sol masque wala déet ku jàpp ku gis nag nga soloo la masque dañ jàpp fay la euh, fay loola alamantu saf comme ça bu ëllëgee dootoo ko defati loolu moo tax yéen jàpp nañ ne gën a veillé à ça léegi ñun bu ñu defee le tour am na foo xam ne dugg nañ fa te nit ñi xamuñu sax ñi doon ñëw ñu xool ñu gis ni sol nañ seen masque donc loolu xëy na day wane ni donc euh, effort yi nga xam ne moom la ñu doon sensibilisation nit ñi ñu koy dégg bu baax ndaxte nag waxoon nañ ni euh, donc euh, fii ci Kolda depuis 31 juillet ba le 12 août cas yi dafa xawoon bëri dem en un de temps loolu day wane ni situation mbas mi fi ci Kolda mu ngi toll ci 138 cas positifs 97 cas contact yi waa kër docteur di topp ñaar fukki docteur bokk nañu ca yile aji wopp juróom-ñaar aji wopp jot nañ fi ñàkk seeni bakkan dañuy dem ba diwaanu Matam fekk fa ki nga xam ne moo nekk àlle Bandel ñaa moom moo ñu teewal ca gox bokk li nu mel ca Dande Maayo demoon fekki fa ndaw ñi àlle Bandel ñaa maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu waa Dande Maayo maa ngi leen di fay di leen dalal jàmm fii ci région bu Matam tey nag dañuy def situation mbas mi fii ñu tollu ci gox bi bile ci ñett département yi maatam Kanel ak Ranérou fii mu ne ñeent doomi aadama ñoom ñoo tëdd ci lal centre de traitement bi nekk fii ci hôpital régional bu Matam di ñett malade yi nga xam ni ñaari ñu ngi jóge département bu Kanel yeneen ñaari yi jóge fii ci département bu Matam mel na ni département bu Ranérou Ferlo mu ngi dawee zéro cas ëpp na ñeenti weer gannaaw kaam bu njëkk ba feeñoon ñaari fan ci weeru juin bi ñu génn tey ji tembe nag li ñu fi ñuy jëm moo di diwaanu Dande Mayo ku wax Dande Mayo nag nga xalaat dem ak dikk bu jafe waaye itam enclavement gox ba waaye askan ba nga xamante ni ñoo nekk ci Dande Mayo xam nañu bu baax a baax mbas mi mu ngi law ci biir réew mi dëkk bu mel ni Koundéel bi nga xamante fa la ñu demoon li gis moo di askan wi farloo farloo nañu sol seen masque bu baax a baax lan lañ ci yóbbee nag dafa fekk ni programme bi ñu duppee Puma bi mbas mi duggee ci réew mi moo njëkk kon dugg ca gox ba distribuer foofu ay masque ak ay gel hydroalcoolique yee itam askan wi tey jii juróomi weer wala ñeenti weer ci gannaaw jur na ngëneel ndaxte jeune dëkk ba ak mag ña ku ci nekk yaa ngi ñàkk sa bopp ngir kon moytandiku feebaru mbas mi ñu teewlu Abdoulaye Ndiaye bokk na ci ñi jiite association pour le développement bu Koundéel la Euh, corona bi vraiment ñu ngi dund ci moom mais alhamdulilah rabil alamin fii na fii nag dara kéwoo fi ci piment piment vraiment piment taxaw na taxaw bu baax taxaw na taxaw bu baax ci coronavirus bi indi ñu fii ay zel ay madar yëpp indi ñu fi waaw vraiment alhamdulilah rabil alamin fii ay euh, fii bi duggul fi xam na xam na affaire bi baaxul vraiment feebar bi vraiment xam population bi xam na affaire bi baaxul. am ay euh, kii ñu taxaw après kër ku ne am na ñu ñu ñu ko kii am na euh, euh, butéel ñu jëf ci or zevet ku ñëw raxas sa loxo ci loxoom waaw kër bu ne am na ay butéel yu mag ñu jëf ci kër yi après ku ñëw. mu def ci ndox loxo yi. ci loole nag ki nga xamante ni moom moo jiite kuréel gi di Puma doon ab kuréel bi fi njiiti mi teg ngir mu suqali gox yi nga xam ni ñoo nekk ci diwaanu dex gi wala ci booru frontière réewum Sénégal Moussa Sow di coordonnateur Puma rafetlu lool ak yi nga xamante ni am nañ ko ci lu ñeel xeexu mbas bi ay weer kon gannaaw bi nga xamante ni ñëwoon na ngir jàppale askan wi yee leen ñu moytandiku bu baax a baax ci wàllu feebaru coronavirus. ñu teewlu kàddu yi Moussa Sow. yi chef de village bi ak waa dëkk bi yëpp ñu ngi yor seen masque te loolu mooy loo xam ne chef de l'État daf ñu ko sant dañu créer la fépp foo xam ne nit ñi dañuy daje dañu war a yor euh, euh, seen masque def mesure barrière yi nga def yor ay gel et cetera et donc ñun am na lu ñu defoon fii joxe ko ci région bi mais loolu euh, misaala la la misaala boobu xam ne gis nañu nit ñi ñu ngi continuer di respecter di sant yàlla bu baax a mbokk yi ci tënk mu nekkoon li nga xamante ni moom la ñu jàppoon tey mu ñeel xibaaru mbas bi ci biir miroir Covid 19 di leen jox dig daje ëllëg ak yeneen xibaar. Ali Bandel ñaa a jaaraama ak waa maatam yëpp daan dem mayo boobu yëpp ñu leen di nuyu nekk loo xam ne dëkk bu am solo la ci biir réew ñaan mbas mi jóge fa ci diwaanu Tambacounda la ñu jëm fekki Moussa Omar Gueye foofu nag la ñu xamal ñetti cas yu bees la ñu ci wàllu coronavirus bu ñu jàppee xayma juróom-benni cas la ñu am foofu ñoom ca Tambacounda ndax nag amoon na ñoo xam ne ci way kër docteur yu ñu testé woon positif waaye jamono ji ñoo ngi ñu ngi def lu ne ci di docteur Samba Diallo di Salif Samba Diallo ak i ndawam yi di ay jeune leader ñoom taxaw nañu ngir nag ñu xeex mbas mi foofu Moussa Omar Gueye ci diwaanu Tamba ñu naan ko salaamaaleykum musa maaleykum salaam ñu ngi leen di fay bismillah leen ci diwaanu Tambacounda tey jii nag bu ñuy xool ci xayma ak tënk. am na luy toll ci juróom benn nit yoo xam ne ñoo ànd ak feebaru mbas mi coronavirus ci centre de traitement CTE bi nekk ci Tambacounda ginnaaw ñett fi nekkoon tey jii nag euh, résultat yi wane ni résultat virologique niñ koy waxee wane ni am na ñett yu bees yoo xam ni dolleeku na ci ñett yi fi amoon ba tax nag ki nga xam ni moom mooy docteur Salif Samba Diallo ndaxte dafa am kuréelu ay waxambaane yu nu duppee ay JLD jeune leader de docteur Diallo dañu doon amal seen journée ngir tàmbali seen campagne de reboisement ndaxte ñu ngi ci weeru août ci noonu nag ñu daal di feddaliwaat woowaat askan wi nañu bàyyi xel ci mesure barrière yi ndaxte seetlu nañu ñu bëri dañu bàyyi seen loxo te mbas mi mi ngi fi ba nekkee ni si docteur Salif Samba Diallo. moon nañu vraiment ba ba dindi ko mais malheureusement ñëwaat na euh, li ñu ciy wax rek mooy nit ñi na ñu na nañu na wu. nañu remobiliser wu parce que bàyyeeku bi ñëpp bàyyeeku woon nañu pratiquement ñi ci gën a bëri bon ñun ñëpp bàyyeeku mais nañu xam ne que jàngoro ji mu ngi fi te mu ngi def ay ravage ku nekk jël ses responsabilité ay magum jëmm lañu ay responsabilité individuelles ñu protéger sunu mag ñi nekk ci biir kër yi parce que ñoom la maladi bi gën a sonal ndaw yi président wax na ko nañu def nañu nañu nañu bàyyi di dem di jëli jàngoro bi doomu jàngoro bi ci feneen di ko indi ci biir kër yi di wàll euh, mag ñi fa nekk. donc loolu moom mooy wax ji ñu respecté mesure barrière yi bàyyeeku woon nañu léegi da ngay taseeg benn kilifa mu jox la loxo doo ko mën a bañ a téye nga téye loxoom. donc nuyoo bi joxe loxo bi bu dee par exemple euh, problème la man di may conseiller nit ñi à chaque fois bu ñu joxe loxo nañu raxas seen loxo yi parce que euh, pratiquement euh, fu bari actuellement di nga gis ñu def fa ay fu ñuy fu ñuy raxasoo mën nga raxas say loxo wala nga wut butéelu gel bu ndaw nga def ko sa poche à chaque fois boo nuyoo ay nit. nga jël gel bi raxasee ko say loxo li ci des mooy euh, ñu jéem a éviter quand même yenn rassemblement yu bari yi rassemblement inutile yi ñu bàyyi ko li ci des mooy ñuy jël ñuy ñuy ñuy yi bu baax a baax a baax donc je crois que ku nekk bu respecté loolu fii weer quand même war ci mën a gis ay résultats yu baax malheureusement nag actuellement affaire baa ngi accéléré. ba tey nag ci Tambacounda ñuy wéy di ñaax askan wi ñu saytu toppatoo lépp lu jëm ci wàllu mesure barrière yi ndaxte moo mën a aar askan wi ci jamono jooju nag waa JLD niñ ko defee ci campagne de reboisement bi ngir toppatoo lépp lu jëm ci wàllu jëmbat garab yi noonu itam la ñuy gën a feddalee seen ay yëngu-yëngu ànd ceeg ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci diwaanu Tambacounda ngir ñu respecté seen ay mesure barrière di jaajëfal Amadou Diodji am suboo di moo ñu jàppale ci tournage seen miroir Covid 19 ba beneen yoon incha Moussa Omar Gueye di ko jaajëfal bu baax a baax ak diwaanu waa Tambacounda li ko wër ci diwaan boobu nga xam ne ñu ngi xeex mbas mi juróom-benn cas dégg ngeen ñoom ñoo fa am ñu ñaan kaa yëpp daal di jeex ba Tamba nag dem ci zéro cas ñu respecté lii di mesure barrière yi gis ngeen reboisement beeg lu nu mel ñu koy def mbokk yi loolu moo gënoon fës ci xaaj bu njëkk bi bu ngeen taaxurloo léegi gannaaw bàkk bi ñu daal di dem xamal leen xibaaru bi ci réew mi ñeewal li nga xam ne moo nekk wàllu mbas mi bàkk ba jibee nag xibaar yi nga xam ne moo ñeel mbas mi ci biti réew tey benn ponk la diwaanu Italie la ñu jëm fekk fa Augustin Faye moom nag jamono ji moo ñu xamal bu baax baax ñi nga xam ne ñoo nekk chrétien ni naka lañ màggalee Assomption di bés bañ jagleel Mariama mu sell mi waaye nag respecté mesure barrières yi ci wàllu mes beeg lu nu mel ci diwaanu Italie ñu dem fekk fa Augustin Faye ak sénégalais yi di chrétien yi ak julli dafa nekk sax naka la ñuy dundee lii di Assomption bi doomi réewum Sénégal te di ay chrétien nekk fii ci réewum Italie ëmbal nañu tey eh, di fukki fan ak juróom eh, ci weeru août eh, ni ki si àddina si sépp yëkkatiku Mariama mu sell ci asamaan mu di moo di mbas mi tax nag bala ca doon lalu ni ki ay xumbu te la ca ko aaye ndax rek bañ wàllante gi di law naka la sax doomi réewum Sénégal di ay chrétien xumbale Assomption gi fii ci réewum Italie mu tombeek mbas mi kàddu yi lañ ci yëkkati. musulman yaa ngi fii chrétien yaa ngi fii nii une euh, belle entente. Euh, comme niñ koy faral di wax euh, Sénégal pays de la Teranga te Euh, laïcité bi dafa am dafa dox ba fii nii ci Italie tamit ñu koy vivre di ko di ko rafetlu lu baax a baax waaw euh, kër goo dem ci biir Sénégal am na ay musulmans kër goo dem ci biir Sénégal kër musulman boo dem ci biir Sénégal am na ay chrétiens je suis <laughs> nu koy waxati c'est le témoin en personne de cela. ñuy def très attention tamit ci feebar bi ndaxte doon na loo xam ne ne. Euh, dafa doy waar daal yàlla mi ko fi wàcce nag nañu yàlla dimbale rek mu mu gaaw fee jóge mais di leen ñaan rek ngir yàlla ak yonente bi faites très très très attention parce que c'est pas un jeu du jeu dafa am carrément ñu def euh, ñu ñu respecter les normes euh, respecter aussi euh, l'hygiène te gën a gën a góorgóorlu daal gën a góorgóorlu bu baax a baax yàlla jëlee ko fi. di ñaan jàmm yàgg ci dëkk bi. ak waaw ba feebar bi jóge fi yàlla Mariama mi moom feet bi tey te mu moom bés bi yal na leen lal euh, bam bu weex bi jàppale leen may leen gudd fan may leen wér ak wérle. yàlla gaaw ñoo wàccal mbas bi comme sama tante ni mu ko waxee waa ñu jàll ci leneen. feetu Assomption gi nag ànd ak mbas mi fii ci réewum Italie doomi réewum Sénégal te di ay kerceen yi fi nekk ñi ci bari nag daanaka rek xumbal nañ ko ci seeni ay biir njaboot terewul it nag ñu fàttaliku rekk nañ ko doon doxalee it e, ca dëkk yañu ñu cosaanoo foofee ci réewum Sénégal. Augustin Faye jokkoo njàlla paax nag eh, ci feet bi nga xam ne def ngeen ko foofu nag di félicité chrétien yëpp di leen ñaanal ñaan yi nga xam ne ñaan nañ ko fi yàlla def ko mbas mi daal fiy jóge ba ñëpp nag delluwaat ci seen i liggéey mbokk yi nañ ko gisandoo gis ngeen situation mu demee tey cent trente cas la ñu am waaye nag cas contact yi ñoo ëpp cas communautaire yi yàlla na tendance bi di gën wàcc ba ñu dem ci zéro cas ci raison yëpp li koy faj nag mooy takk masque rek naka noonu dandante di raxasu bu set am sa gel jël mesures yi lépp ñu def ko rek ngir moytu li ci des nag borom bi moom moo ko yore di ñaan lu yàggul dara traitement daal di génn li nga xam ne nag nguur gi jël na ko ci wàll wi surtout nag ci wàllu transport bi danaan restriction yi waaye des na lool lool lool monsieur le ministre de l'intérieur des na lool lool lool monsieur le ministre Omar Youm mi yor wàllu transport yi ndax nit ñi dañuy lang léegi ba ci ginnaaw di jàpp ñu ci bëri duñ sol mesure barrière war nañu gën a bàyyi xel loolu parce que mbir yi nekkul ne pour xeex pour wér gu yaram la jëfee jukko yaakaar naa ni ki tey jii loolu fi gënoon fës suba incha allah ma dellu si waat ànd ak yéen ci beneen miroir Covid 19 mbokk yi jàmm ak jàmm ba suba.